laay keroog bam ni jirim fa kawlax géej gaa nga ànd ak dex ga léppi falax ma marsiyaati say xanaa ma samba tabba fi daa roy roy lu say xi bamba yaa malakul mawti la siitu miito bi isni man yuxyi wala yamuutu

bu dee julit ñu teeru jox ginaana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee leneen ñu teru jox niiraana bu dee ba fa tabaarakalaaw xel daal na ci bu baax léegi fa tabaarakalaaw amul daal benn bëgg-bëgg boo xam ne sëriñ bi dana ko bëgg mu dugg noppam te yitte woo ko woo ko mu amul wax dëgg fa tabaarakalaaw kon duñ man lu dul sant ko duñ man lu gërëm ko te sant sëñ taxaat mi nga xam ne moom it léppam moo ko mi moo ko def lu muy def lu ne moo ko ca doy muy wax lu ne moo ko ca doy kon fa tabaarakalaaw duñ man lu dul lu mu nekk rek ñu ànd ci ak moom jàppale ko ca ndam nam ca war a am mu am ko ca réussite ba mu ca war a mu am ko ca ñu koy sant bu baax loolu su seetaan kenn nag ci ci dëkk bi yëpp kenn ku nekk ku xew la ku nekk taxaw ca la ngay def am ca yitte am ca taxawaay bu rafet ba lépp yewen kon loolu ñu ngi koy seere ñu ngi leen koy seereel mi nga xam ne ku jege sëñ Maam Mor nga ma xam ne nga leeral ko loolu man ko ne loolu moom waxtu wu ne ci la ñuy waxtaan maak moom duñ ci jóge waxtu wu ne kon nag ñu ngi sant bu baax a baax bariwul jot waaye nag yitte ji may na ko moom fu ci nekk <laughs> lu mu nekk ñoo gën mu dem ba rek sant nañ bu baax sëriñ bi jërëjëf yal na yàlla dolli la su nan jooy sëñ Masamba Anta Jeeba waxtu jeebop